فهل بدا برق ثاغر من ثنياتي أم لمع برق بدا بين ثنياتي شمس المعارف بل نجم المفاخر بل بدر الدجى سرفا فيض الفجر خلفني فهل بدا برق ثغر من ثنياتي أم لمع برق بدا بين ثنياتي خلفني شمس المعاري بل نجم ما فاخر بل بدر الدجى سرف فيد الفؤاد لغيل فهل بدا برق ثغر من ثنياتي أم لمع برق بدا بين ثنياتي خلفني شمس المعارف بل نجم المفاتيح على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من كنوز الخير والخاتم لما سبق من الرشد والهداية وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كما حكى شيخي وأخي وحبيبي وابني المحبوب محمد المنصور ومحمد المصطفى الوزراء نيابة عن صاحب السماحة أو صاحب الفخامة رئيس جمهورية سنغال محمد المنصور السالي والسيادة أيها الحضور الكريم أيتها الأخوات العزيزات أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة وأقول asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah moom dafa mel ne xam naa ñi ñaanoon tamit xaw na baax te koor la te mu ngi ngoone te ndaw ko laay ali ko Babacar Ndao nga ne dima koor <laughs> danga naa ni ku leen teel a yeew itam duñ la mere ah sëñ Mansour dafa ni Cheikh Ahmed Tidiane ma bind ko mi ngi nii bi ñëwee ba dugg ci oto bi ma ni ñi ma àndal du ma traité sujet boobu ñu ma lu tax ma leen dafa xaw sensible man leen ak ngëneelam ci ruux ngëneelam ci yaram loolu lay ma traité du sujet lu tax dëgg la sax bu ñu ko waxee ñëpp la lamb bu ñu métti ci suñuy ruqat suñuy zawaaya mën nañ ko waxtaanee waaye bu dee publiquement nag ñu waxtaan ne ñi ñëpp bokk ndax dañ ni xaadi Jibril Jaay fii ci Ndakaaru ku ne xam na li mu représenté Seydi El Hadji Malick jàngal wala boog jàngal na ko lu bari moom Serigne Babacar Sy itam ñoom la bokk firee noonu al quran mais dañ daan wax ni ñoom ku ci dajee sa morom danga ko naan sama cheikh te xaddi moom magoon Serigne Babacar Sy lool waaye bu dajee moom du ko naan sama cheikh sëñ Babacar Si dugg suma cheikh parce que ñoom ñaar ñoom la Seydi Hadji Malick boole rek firil alquran waa ji jublu jàng ba mën a dafa topp di jàngale Faatihatu Xulla benn téere la bu Seydi Hadji Malick bindi ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane mooy lan tani cheikh awraat yi mu tëral noo koy jëfe wala nga koy jëfe bi nga war a mel indi na ci lu nekk ci lu aju ci tariqa mu tax nga di ko jàngale am benn waaye bu toog teewe tam waaye bokkul ci tariqa bi nag mais am na passage yoo xam ne xolam nanguwu ko ndax foofu la culture am yem comme almartibatu laa tusaame mu jékki-jékki xam ne Jibril jaay ñu ko egg eh, jógal nga daw gaaw matt ba Cheikh tànn na sa kër li may wax ci moom nga nanguwul te damay wax ni léegi Sénégal ku fi waxtaan da nga def très attention parce que moom nit ñi nga blessé leen du waxi o boo xasee woote o ñëpp ay ñëw soo waxee li nga moom nag ñëpp ngay bëri kon da ngay wax rek li diine laaj ñëpp bokk ko buñ demee ci rupp yi nag ku ne lañ la jàngaloon ndoo ko jàng ko bokk seqal lu jeex tàkk loo taxoon ma ni bu ma ñëwee du ma waxtaan ci diine boobu ma ñëwit jataay bi loolu la laaj waaye ñëpp ngi ci ñëpp i fi ñu nuyu ñëpp nag kañ cee jiital nag dama gis suñu kilifa di leen toog tey mag ci kër Seydil Hadji Malick bu doon góor tey mooy nekk xalifa bi muy Seydatu Umu Kalsum te moo taxit ma ñëw ci conférence bi naru mu woon ñëw wax léegi nag mag la vraiment waaye moom ma yónnee ndam ñu ko nekkoon na dem ca conférence ko nekk ba tisbaar di bëgg jot góor gi góor ñox ñoxi génn nag mais góor gi depuis dix heures maa ngi yàlla maa tardel góor gi dox na la nga ne ko muy yow man na laajoo man fii ma toll ci âge su ma xëyee ni may dajalee suma yax yi ku ne ma roof ko fa ma ko war a roof bu yëpp daje mu fab lu xuppoo ko la loolu ñett ñetti jóg taxaw ñu solal mu mbubb dafay yéex wax dëgg yàlla صاحب الزمان وخليفة هذه الحضارات والحضارات التجارية كلها سيدي Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom lañ fi toogal mu ni ma yebal na alxaaji Siise ak sàmm ñu wette li la ñu ñëw ñun bokk noo ko fi toogal ci xadara bi bii moo ko moom ndax ñun loolu la ñu xam parce que kilifa kilifa xasee wax rek moomatal sa bopp da ngay dem exécuté doo ko laaj pourquoi wala la suñu tarbiya tariqa laaj bul ni pourquoi yantafi minhu bi ma taallama noonu lañ koy jàpp gëddi sa chef sa sëriñ pourquoi ça demal def naa nga pourquoi déedéet nee nañu boo ko xasee wax dootoo jëriñ da ngay dem exécuté ba noppi ñëw na ñu ko pourquoi loolu moom la ñuy jàngal moom la ñu xamal moom la ñuy appliqué Serigne Cheikh Tidiane si tey mooy jiite kër Seydi Hadji Malick ku nangu ku nangu kenn mënul am ñëpp nangu yàlla sax ñëpp nangu li ko dañoo làkk ah kon moom itam moo ko jiite rek ku nangu nangu ku gànt gàntal nga saa gànt ñun ñu sañu la gànt ñu nangu sama am la baax ndax dama ko ni woon xaqiqa fal na la bañ waaye aadaa la bañ ni yi nga am yëpp ci tariqa bi mag ñi defal la ko bari na bari nag suñu kër këru aada ku mag la jiitu ma ne ko alaaji Abdou ngi fi Mansour ngi fi suñu Moustapha ngi fi alaaji Xalifa ngi fi wala nga leen di jéggi bàjjoo ñas ba yegg ca sama xottal di bàjj waaye i ñu la ko def ba mu fekk ci ndax sax ba mu waxee kenn kenn tegu ca ban bi suñu Mansour nelawee ba ma téléphoné président Macky Sall moom laa ci teg en tout cas si Cheikh bi de Cheikh bi ko la wax loolu daan waxante ñoom ñaar ñaari Cheikh lañu cinq mois lañu magante bokk def lépp nag yaroon ñëw ci benn xadara bokk benn néeg bokk benn lan di ci tëdd ñu àndoon seen surga di leen servir di leen attaayal di leen kafeel di leen baleel di leen lalal seen lal moo tax si ñoom ñëpp la woon te si na Boubacar ka alaada Mansour ka alaada Abdou ka alaada Habib ñoom ñëpp te seen Mahamadou Mansour seen Mahamadou Dajou ak sa Ahmad Tijaan bi nga ma gëddal ba ñaar defal yooyu yëpp ndeysaan ñu am pantere su tuuti pantere su tuuti bokk ko ñoom ñaar parce que gis nga loolu moo di moo di ci ci wàllu tariqa si Ahmed Tidiane ku ci topp doo fonk ay dëkkuwaay bi sama baay mosu fonk dëkkuwaay suñu mbàkk kër si. da daan jënd kër. bu tuuti tabax ci ay néeg yu tuuti ah waaw ñun fu ñuy dëkk nag lu ma ci xam kenn mosu ci am néeg man am naa soxla ba am ak moom dix ans ci benn néeg benn néeg aw ma waaj aw ma wana dix ans benn néeg maa sama soxla ak samay doom. ngeen wuti bu génnee wuti leen ko oto bi mu nelawee ñu ne néeg kër yi kër yi soxla yi kër yi dañ ko moom taalibe yi ko leen ko fi bàyyi nan ku bëgg kër wutali ko sa bopp ñëpp d'accord tabaraka allahu man ko am nga si cër waaye aada waxtaan si tàntale ci biir ca Ndar ca Ablaye Cheikh ak Tamara Cheikh. dëgg ma la ne si waaye maa ngi Cheikh Ahmed Tidiane mag toog noo ànd ci benn oto jëri soxna Faat si pour mu ñëw Tiwaawan. nga nekk ni nga nekk li nga nekk rek. lan mooy baax rek nekk li nga nekk mooy dégg li nga si maa ngi yàlla yàlla yàlla dogal ma dem def loolu. mu wax ànd ak kon Malick ba ci soxna Fatou si ko wax ko li ñu war a wax ci yu mu tontu ci yu baax yëpp loolu suñu affaire famille la waaye waroon nga boobu waxkat yi ñu ngay nga ñuy ñëwoon tous ah nga am lu jub si Serigne Babacar Mansour ñëw ñu ma waa noonu parce que sunu xalifa dem na xalifa bu bees bi gisuñu kon kon nous sommes dans les passes waaye ñu déglu ba xam xanaa dana wax dara ñu toog gi def ñetti man mu téléphone ma nii man ah waaw man xam ngeen ni dama am ngat mënu ko ñëw waaye yéen Maodo dem leen juma suñu Babacar Serigne Mbaye na ànd ak Pape Malick dem jumaa Seydil Hadji Malick ngeen waxtaan rek nit ñi te teg leen ci yoon wax leen ah waaw ba ñëw na ñu ne ah ko exécuté bismillah ñu def ko taalibe fiix parce que kër Alaaji Maalik muy yaakaari taalibe yi suñu àndee ñëpp fiix suñu ko xool yëpp fees bàyyi bu passé ziar Général jub si ma téléphoné ko ni ko ziar bi nag loo ci xam mu ne ah suma ziar ziar suñu Babacar la te yéen a fi nekk taxawu leen waaye dama bëgg yéen ñib surtout ci si biir xaj waaye ñëpp ngeen daje ci benn place recevoir nit ñi bañ def ay jomp jomp loolu def ñëpp boo amee baat te baat bi ñëw la doo ko seetloo kenn doo ko seetloo baat ak kenn noonu la ko yàlla bind ku ñu teew moom lañ ko teewal ndax loolu bu contrat dañu si bu jeex bu yebaloon keneen ma dem ndax dafa dem ci benn dëkk fekk sëñ Mansour mën nga fa yónnee waaw maam as doomu la yónni man dama dégg nit bi rek dem ma ñëw toog ñu ne ah déglu leen si ñebe wala déet te je ne suis pas officiel parce que sëñ Mansour yónni wu moom as ñu la yónni dina wax man sama bopp ma indi dama dégg nit bi rek ñëw noonu la ñuy doxalee ci suñu kër loolu moo tax di sax nu mu yónnee ni naa. ñëw ci bés bi mënuma ko sax waaye jéem na jéem na pour comme ni ko sëñ Mansour waxee sëñ Babacar Si radiyallahu anhu dafa ni woon ñaari bés na ko sédd ma ni ko waaw mun ma jëmm ak ëllëg ma ne ko tey nag mun ma tey yaa ngi ci mun ma tey yaa ngi ci mun ma démb passé na ma góor dana ko seet démb passé na ma góor dana ko seet mun ma ëllëg ñëwagul waaye borom xel dana ko sédd nga xamal lu indi lu ñëw ngir ci lañu bokk njaboot lañ si Cheikh Seydi Mouhamadou bari ba guddi gi ak bëccëg bi doyatul suñu amoon luñ ci dolli dañu ko ci dolli waaye nag kan moo ko ciy dolli moom juróom fukk la woon mu ko ci yoon mu jox ko Seydina ni ko soo demee def ko su seen ci xeet yeneen ci bi ñëw dajeeg Moussa ku la mag ëpp la sagar Moussa moo ko jiitu ci nubuwa xam na li nit àttan ak li nit àttanul juróom fukki julli par bés bu ñu la ko joxoon fu ñu jëm Moussa ni ko waaw la nga defal borom bi mu ni ko gis naa ko de jox na ma juróom fukki julli Moussa ni ko juróom fukki julli foo ko jëlee denn mois bi mu dem yàlla jëndi fukk mu dellu si Moussa ni ko nu ngeen def mu ni ko ah dinañ ci fukki def mu ni ko doyul dellu mois bi mu dellu yàlla jëndi fukk mu ñëwaat Moussa ni ko nu ngeen def mu ni ah wàññeenti mu doyul de demal mu wàññi de muy ñëw mu ni ko delloo ba mu ñëw mu ne ko nu ngeen def mu ne ko fukk de ci des ñu ko demal mu wàññi mu dem yàlla dindi juróom yi mu def rek juróomi julli Moussa ni ni ko nu ngeen def mu ne ko juróom de ci des mu ne ko demal mu wàññi mu ne ko dëgg dëgg lu saa bari ñu ngi juróom la yoo xam ni boo ko seetlalee def ko nan ko war a defee am yoon yu juróom fukki julli ak julli lu jafe la lu nit ñi foyale patam patam génn ci dem ci jàkk ji suñu seetaani ci bunti yow daal di kàmbat ah, service bi xam naa bu ñu li ci yeneen ci bi wax loolu nag day waar waaye nee bu ñu sa nangu julli kenn rek mu yóbbaale ñi ci des ñëpp ci yërmande yàlla ak baax waaye julli foor na am na solo te damay wax ni yii ci mag ñi dugal yëpp yëpp gannaaw julli juróom xam ni rek manewuñu ko ni yàlla waxe ñu dugal ci yooyu dugal ci yooyu pour mu mottali lii manqué ci julli